asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi ñu tàmbalee ko ak ab xibaar bu tiis muy dëddub àdduna góor gi Abdoulaye Niang muy jàngkatu xasaayit bi gën a siiw fii ci senegal mu nelaw fële ci diwaanu Ndar géej ginnaaw ba mu làqee juróom-ñeent fukki at ak lu topp dinañ dégg ci biir xibaar yi ay seede bàyyeekoo ci ay mbokkam foofu lee ñaari nit yuñ doon njort ni dañoo am coronavirus ca Kolda ak Tambacounda ca Tambacounda moom benn touriste bu faatu la waaye résultat yi li mu joxe mooy du jàngoroy coronavirus la am ca Kolda moom benn touriste français la ñu jël berko ko ca chambre d'hôtel ba mu nekkoon di xaarandi résultat test yi ñu yebal fii ci institut Pasteur bu Ndakaaru ñi yëngatu ci wàllum mbuusu ndox di ko jaay ñoom door nañu ab grève ñetti fan tey jilee li ñuy naqarlu mooy loi bi ñu nar a jëmmal ñaar fukki fan ci weeru avril bi plastique yooyu le a métti sax dañoo jàpp ni ministre bi ñu dénk environnement dafa nekk di waññaar seeni yoxo lu ëpp téeméer ci ay mécanisiens la gendarmerie bu Wakam teg loxo jamono ji dañoo delluwaat ca ancienne piste ba ginnaaw bañ leen fa jëlee ka jiite gendarmerie boobu leen nag ni képp ku def lu ni mel naka yoon dina la teg loxo Union européenne jox euh, Sénégal lu toll ci juróom benn ngir mu xeex euh, tukki ci anam yu jaarul yoon euh, loole ñu fas yéene cee dooleel ñi ñu dénk kon xeex boobule muy takk der yi waaye tamit gën a lëkkale bépp service buy liggéey ci wàllu woowule loole lépp tënk la nees tuuti ñu yaatal ko. ni ngeen ko déggee baat boobule di bu góor gi Abdoulaye ñang nekkoon jàngkatu xasaayit bu mag a mag fii ci Sénégal ñu ràññee bu baax a baax tey jëlee la dëddu àdduna ca diwaanu Ndar Géej foofule moom Serigne Abdoulaye Niang moom nag waa ñi ñi nga xamante ne ay murit lañ wàllu sax nag lu ko jégg xam nañ ko bu baax a baax mu nelaw ginnaaw ba mu làkkee juróom-ñeent fukki at ak ñett foofu ca Ndar Géej la dem jël ay seede ci ñenn ci ay jegeñaaleem ci micro Ousseynou Diop ak Habib moom tey dafa wàcc liggéey ndax euh, koo xam ne ba ñu gimmee ba tey ak rawatina ña nga xam ne ñun sax ñun ñooy génération yi gën a ndaw yi fekkee jamonoom waaye léppam Serigne Touba la. liggéeyal na Serigne Touba liggéeyal boo xam ndax Serigne Touba daf ne léppam mi ci xasida yi liggéey bu am solo boo xam ne ñun dañuy tiitaroo ñun waa Ndar Ablaye Niang. Ablaye moom dañ koy roy waaye kenn mënu ko soo jot bu doon jamono léegi jii des sa ko bëgg a jàngaloo ay at te dootu ko jot ndax ñëpp da soxla ndax sa njàngam moom mi doon jàng ba léegi moom la njàng mi moom la nit ñi soxla léegi. ku bëgg njaboot la bëgg Serigne Touba nag boo ko bëggee am dara ci moom rek wax ko Serigne Touba yàlla na ko yàlla xare àjjana te xam naa ni yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ñu koy teeru ca àjjana si. tiis la waaye euh, bis la boo xam ne aussi duñ ci am yaakaar lool mooy bisu nelawu Serigne. Abdoulaye Niang nga xam ni dundam yëpp daf ko jaay euh, euh, Serigne Touba liggéeyam yëpp dafa liggéey Xaadimu sol defe naa ne moom jëmmam moo doon xaside yi jëmmam ku ko gis loo jëkk xalaat mooy xasida yi ñu bare ñu euh, fii xam xasida euh, xasida yu ñu jëkk jàng bay yu ñu jëkk xam muy bay yi ñu ko dégg ci gémmiñu laay Niang mu doon ay seede nag ci sëriñ Abdoulaye Niang mi dëddu àdduna tey jile du ñàkk yeneen jotaayu xibaar dinañ ci egseeg yéen ci anam yi mu gën a yaatoo ci xibaar boobu boobule beneen xibaar muy jàngoro jàngoroy coronavirus fële ca diwaanu Kolda nag am na benn touriste français boo xam ne mi ngi toll ci juróom benn fukki at dañuy njort ni dafa am jàngoro bi ba tax ñu jël ko ber ko ci néegu hôtel ba mu ci néegu hôtel ba mu nekkoon ci boppam fii léegi nag ñuy uh, yabal uh, prélèvement yi Institut ndakaaru ñu def ay test xool ndax da koo am am euh, déet euh, moom euh, dañ ciy déglu kon ki nga xamante ni moom moo jiite région médical bu Kolda di docteur Yaya Ba ci micro Abdoulaye Diallo. waaw am na cas bu ñu am boo xam ne am nañ mandarga yoo xam ne mën nañ jàpp ne cas la donte lépp li nga xam ne moom moo ëmb cas suspect mu ngi ci moom. am na yoo xam ne nekku ci waaye nag comme koo xam dafa dafa jóge tugal ci euh, dëkk boo xam ne feebar baa nga fa donc euh, aussi mu ngi am yenn signes yoo xam ne aussi méngoo na ak signe feebar bi moo tax bu ñu demee waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak euh, waa comité waa niveau national mooy cellule d'alerte niveau national ñu jël décision que dañ koy prélever comme ni mu ko waxee yu mel nii pour bara dara bañ la rëcc. koo xam ne am na ci yoo xam ne ñëw na moom daal mu bañ la rëcc moo gën mais moom nekkul koo xam ne dafa sonn parce que dañoo ñëw fekk sax dem nañ dem na àll ba rëbbi bu mu ñëwee ci lañ ko woo nee ko demal sa néeg am na ñu lay seet ñu daal di dem ci moom waxtaan ak moom moom daa yàgg soj depuis seen dëkk day sëqat tuxkat cigarette la donc yooyu yëpp nekk naa yoo xam ne aussi te nee aussi bu nekkoon Dakar jotoon na fa daanu ci néegam donc am na yenn yu bare yoo xam ne mun na expliquer yenn signes mais néanmoins vu que ñu ngi ci contexte épidémie donc euh, équipe district Kolda ak bu hôpital brigade di ñun ñu dem ñu def li ci war donc euh, prélever ko envoyé prélèvement institut Pasteur bu Dakar donc moom mu ngi néegam du génn néegam donc mise en quarantaine la foofu la ñu koy joxee lekkam ak yëpp ak précaution yi ci war yëpp donc ñu ngi koy suivre ba keroog ñuy am résultat yi mu am ca Tambacounda it am na benn touriste français bu fa ñàkk bakkenam moom sax ba nit ñi doon su jàngoro boobu boobule waaye prélèvement yi ñu yabal fii ci ndakaaru Institut Pasteur tax na ba ñu xam ne moom du jàngoroy coronavirus moom moo ko faat moom mu di ab touriste bu jóge woon fële ca Bordeaux dem ca campement euh, chasse ba nekk ca Gouloumbou foofee nag sax ci région bu Tambacounda gouverneur bi dafa joxe woon ndigal ngir képp ku mu àndaloon mu di fukki touriste ci ay lim ñu ber leen ak fanweeri nit yi nekkoon ca campement bu Gouloumbou boobule euh, fileek euh, kon ñuy jot euh, résultat prélèvement yooyule jàngoroy Covid 19 bi la ñuy waxtaanee ba tey ak li muy jur ci wàllum koom-koom ba ñu demee fële ca Ñambur nag Ñambur ku ko wax xam ne lu bëri ci ay émigré dañ fay yónnee xaalis waaye jamono ji nag néew na loolu loolu lañu ñu seen lees nemmeeku ci ay service transfert d'argent yu nekk foofu le ndax ñu bëri ca ñoom Italie la nekk te Italie jàngoro bi am na benn association immigré bu nekk foofulee nee na état bu Sénégal faw muy gën a gestu doomu réew mi nekk foofu foofulee rawatina ca région boobule ñuy duppee Lombardie reportage ca Louga Thierno Fall. jàngoroy coronavirus bi nga xamee ni jamono ji moo lëmbee àdduna bi tàmbali di indi ay jafe-jafe ci wàllu koom fii ci diwaanu Louga nga xamee ni ñu bëri ci askan wi bitim réew la ñu nekk di fa daan seen doole loolu nag di lu nga xamee ni moom la ñu nemmeeku ci yenn bërëbu jëlukaayu xaalis yi doy na waar jamono jii ñu toll parce que maa ngi woote rek tey di laaj ñu ni ñoom instant yi dañoo dañoo en quarantaine ville yu bari tey sax daanaka kenn génnul ndax am na xaalis yoo xam ne waroon naa ko jot mu jógee foofu mais ñoom ñëpp problème mu génn dañ leen lan dañ leen di euh, il faut ñoom ñëpp ñu tëju fii ba le 3 ne chaque jour immigré yi lu mu néew néew ci monde bi sénégalais yi dina dugal plus de deux milliards dans ce pays calculer ko at mi ñaata la suñu demee ba tey lu mat 3 4 mois ngi nii ñoom ñëpp ñu am ay problème koo ci wax mu ne la ah duma mën a yónnee dara parce que usine yi ñu doon liggéey tëj nañ ko ñun ñoo ngi toog ci biir kër ñu te def ñu quarantaine Ali Deme di njiital Njàmbur self help di association bu boole ay immigré am itam ak njaboot gu nekk bitim réew di dëggal lu ni mel. ñetti kër yoo wax laa wax ñaar ya am na ay immigré kon mun na ne suñu économie dëkk bi tey muy Louga immigration bi moom moo yore lépp te léegi ñi ngi sentir jafe-jafe bi dëgg-dëgg. ndax man xam naa ci dara suma ay njaboot ña nga fa weer wii nii nii may waxe nii amul benn kër boo xam ne tey ci côté lombardi bi amul benn kër boo xam ne tey da ngay jot mandat bu ñu la yónnee amul kooku il faut que ça soit très clair te loolu su continuer ñaari weer ñett ñeenti juróom mu indi problème. certainement parce que comme euh, xaalis bi daanaka boo xoolee Louga ci ëpp seen ay moodu moodu moom moo composé population yi bari comme loolu moom mënu cee ñàkk moom faaw xaalis bi moom dana xaw a des. jamono jii na moo tax daanaka gis nga dañoo toog rek. tolluwaayu jàngoro ji foofe ca Lombardie tax na ba dëkk yu bëri dañ leen a quarantaine ci loolu nag ancien immigré bi di xamle ni mën naa indi ay jafe-jafe ñeel sénégalais yi nga xamee ni ñoo nekk foofu rawatina ci seen wàllu dundin. ndax tey suñu demee ba commencé am ay problème mu liggéey liggéeyatunu nga nekk fa ak sa jabar ak sa ay doom nekk ci sa biir kër te mënatoo génn mënatoo dem mais kooku gouvernement nan lay xalaate pour jàppale leen parce que tamit nag am na virus bu gën a doy waar mooy nit bu ko feebar tàncee mu dem ba nga xam ne lekk ak naan dootu ko def boobu moo gën a doy waar kon nag loolu gouvernement bi ñu ngi koy tàllal loxo di ko wax ne na xalaat bu baax ci secteur boobu xam nga feebar moom moom nattu la boo xam si suñu borom moo ko fi wàccee ba tax na ku nekk tamit nga war ngaa mën a moytu loo xam ne suñu borom moo ko wàccee xam nga ëmpul kenn quoi ku ne mën na laa dal moo tax may may lancer appel rek ñu gën a prudent Louga di dëkkub émigré bari lool ay doomi gox bi nga xamee ni bitim réew la nekk di fa daan seen doole rawatina nag foofee ca Lombardi nekk ca Italie njaboot gi ñu bàyyi fii donte seen xel dalul waaye ñi ngi leen di ñaanal yàlla mu musal leen ci jooju jàngoro waaye itam di sàkku ci ñoom ñu gën a farlu ci wàllum fàggandiku. laata ñuy tëj euh, fànn woowule muy jàngoroy coronavirus dañuy dem ca ministère de la santé Cheikh Diop mi ngi foofu Cheikh maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, soxna Naata di nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne euh, jamono yi ñu ngi teelu télévision Futur Média. Cheikh tey jilee ndax am nga ay xibaar yu bees mu ñeel jàngoro boobule te tukkee ci kilifa gañ ko dénk muy ministère de la santé. Euh, jërëjëf euh, Ngone euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàll wi nag boobaak léegi ñu ngi ci réunion boo xamante ni donc pour sax ñu génn wax ak ñun mu mel ni jafe-jafe la ndax ñu ngi taxaw ci point yi nga xam ne jot nañ koo seetlu ci gox yi nga xam ne moom moo nekk fii ci réew bu Sénégal yaa ngi dégg cas bi nga xam ne am na foofee nga xam ne moom moo di ca Kolda ak itam ca Tambacounda waaye mu mel ni ginnaaw nag test yi nga xam ne jot nañ koo def mu mel ni dafa négatif dafa négatif boobaak léegi itam ñuy wëy ci xibaar yi nga xam ne rek ñoom ñoo bàyyeekoo ñeel xibaar yi nga xam ne euh, moom moo di euh, ci feebaru coronavirus wala bokk euh, Covid 19. niki ngoon itam ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu wi di directeur bu cabinet bu jëwriñ jiñ dénk wàllu wérgu yaram fii ci réew bu Sénégal di docteur Aloyse Waly Diouf dina ñëw ci rek xibaar yu yaa jox ko askan wi ngir rek daal di wax ana yan cas la ñu gis ne que ne dañoo positif wala bokk dañoo négatif lu mu ci mënti doon institut Pasteur test yi nga xam ne fësal nañu ko rek daañu ko wax waaye tamit ñu ngi xamal rek ne ci euh, xibaar yi euh, soxna naata euh, institut Pasteur li nga xam ne mi ngi koy def ñeel wàllu coronavirus bi lay dañ koy tas ci gox goxaan yi maanaam fépp foo xamante ni rek kër docteur dafa nekk ngir rek ñu mën fa amal yile texte daañ ko def ngir rek mën a gindi askan wi ñu bañ a réer ci bile feebar xanaa rek ñu xaar point de presse bi nga xam ne daañ ko amal niki ngoon ngir rek ñu gën cee ami ay leeral ndax tey ji bi ñëwee fii ci ministère de la santé bëgg nañ jokko ak ñoom mais mu mel ni dañoo nekk ci ab gisee seen ak biir mu di ab réunion bu yaa boo xamante ni njort naa ne bu ñu génnee daañu jox li nga xam ne rek moom moo di xibaar yi euh, ci wàllu euh, feebar bi di coronavirus soxna Naata Mbaye. incha allah Cheikh Diop sant ko gërëm ko nekkoon en direct foofu ca ministère de la santé dañuy euh, desandi ci wàllum paj mi ba léegi ak hôpital ba ñuy fajee xale yi di Albert waaye génn nañu nag benn communiqué ngir indil ay leeral ci xale bu jigéen boobu boobule tout tànk toll ci ñetti at ñu ne woon dañ koo sàkku structure bi nag ne xale boobule musta ñëw foofule ñu hôpital boobule ginnaaw bañ ko yëree ba noppi ki euh, jiite euh, commission médicale bu boobu boobule di ci dolli sax ni vidéo bi nekk di wër jamono ji teñ euh, ci wane xale boobule ñu koy faj nee na nekkul loo xamante ni daal dafay rafetal derub personnel de santé maanaam ñi nekk ci kër docteur moom professeur Malick Faye mi jiite commission médical bu hôpital Albert Royer la ñuy déglu. bi ñu jot jël ay image yu mel noonu di ko def ci réseau sociaux yi que ni waxtaan naa ak chef de service su chirurgie waxtaan naa ak responsable SAU waxtaan na ak chef de service responsable pédiatrie ñoom ñëpp li ñu wax mooy lii xale boobu consulté wuñ ko Albert Royer hospitalisé wuñ ko Albert Royer loolu moom lu leer la ça veut dire mësuñu koo gis Albert Royer donc image yooyu xamuñu fu mu jógee mais jógewul fii ci hôpital bi mais bu loolu weesoo aussi dama bëgg a ñaax nit ñi ñu def ndànk ci li ñu def parce que information yu mel noonu boo ko amee da ko war a càmbar ba xam fi mu jógee avant nga koy diffuser loolu mooy benn ñaareel bi aussi pour wax nit ñi ne image yu mel ni kenn waru ko dis kenn waru ko di diffuser di ko partager parce que quand même ab xaleel la sa nit ki dañ ko war a sànq sutura et médecin pharmacien dentiste ou paramédical bu nekk xam na ni euh, sànq sutura nit loolu am solo la quoi ñi ko filmer moom seen responsabilité la ñu engagé. ah te bi ñu koy def aussi defuñu ko ci turu personnel médical ou paramédical bi nga xamante ne ci la ñu nekk donc encore une fois nañu def attention ci image yi parce que amul benn njëriñ ci askan wi. kon leer na niñ leen ko doon waxee sànq ñiy yëngatu ci wàllum mbuusu ndox te di ko jaay tey jii la door nañu benn bu ñetti fan maanaam tey ëllëg ba aljuma li ñuy naqarlu nee nañu jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement dafa mel ni dafa bëgg wañ seen loxo ci loi boobule di tere mbuusu plastique ñu nar koo jëmmal ñaar fukki fan ci weeru avril. bi ñu dëgmal ah, yaakaar nañ ni waroon nañ cee gën a waxtaan ak ñoom wala ñu joxaat leen sax beneen upp àpp te li ñuy fàttali mooy lu toll ci fanweeri junni ci ay doomi aadama boo moytul ñu ñàkk seen xëy ak loi boobule Abdourahmane Diallo ak Mamadou duggee ñoo ñu teewal ci diwaanu mbuur mercredi, jeudi et vendredi, trois jours de grève décrétés par les acteurs de l'eau en Ils décident d'arrêter la production et la vente de l'eau. On invite tous les acteurs de l'eau à respecter ce mot de grève. Les usines, les véhicules, tous ne seront pas fonctionnels. Encore une fois, on s'excuse auprès des populations. On ne l'a pas fait pour leur faire souffrir, mais on a un combat noble. boobule nga xamante ni en français la dañuy desandi ci wàllum ndox ba léegi ak askan ba yeewoo ca caaxaar ay village yu bëri sax nag nekk ci commune boobu la nekk ci département bu Bombay ñoom li ñuy dund mooy juróom benn weer te gisuñu pepp ndox ba tax na Aquatec la ñu bëgg mu abal leen moom mooy euh, yore ndox bi foofu foofule ca kaw ga ji benn euh, conférence de presse lañ doon amal euh, démb am na sax benn mbootaay bu ñu taxawal foofu foofule ngir lijjanti seen i jafe-jafe ci wàllum ndox dañ ciy déglu micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ñu jël obédience politique yi yëpp teg na parce que lii wàllu ndox la ñëpp àndandoo góor a jigéen mag ndaw ñu génn pour saytu lool. ci kaw lool nag ki lañ fi def ay assemblée général ci kaw lool nag bind nañu benn xaatim ñu koy wax mémorandum boo xamante ni jébbal nañu ko autorités autorités yi nga xamante ni kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom lañ ko war a jébbal pour que ñu wut ci ay saafara ci kaw mémorandum boobu. problème yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii ci Jaxaar moo di ay paan maanaam paan yoo xamante ni day am di amaat saa ne tey itam prise en charge bi day yéex bu leen woowee ne leen forage yooyu waaye paan na ba ñu koo defar dina def ay weer muy soog di jeeg wala boog boobu ba léegi sax jeegagul. suñu euh, le président de. la ko mooy forage Yorowaay courant ba mu nga Yorowaay waaye accès gu ca forage ba léegi di gasoil la ñu donc loolu si jafe-jafe la boo xamante ni am na. beneen jafe-jafe moo di coupure yi mooy loo xam ne day jékki-jékki rek xuy kamat gi rek courant bi di fay ci forage yu Caxar. dernier point résolution bi nga xam ne jël nañ ko nag moo di loolu noonu comité bi décidé ñu Aquatec jóge fi bàyyi population ñu gérer ndoxu Caxar. ci wàllum yoon ak euh, loolee ñuy duppee mbirum euh, Diop euh, Isaac Dieyna Baldé Ali balde ak Isaac abibatu Si ñoom ñett ñëpp nag bàyyi nañ leen te toppeetuñu leen dara bu ñu sukkandikoo ci Libération Online ñoom kii di Mamadou Diop di PDG bu Isaac ci boppam moo leen porté woon plainte di leen toppee mu ne ay photo wala bokk vidéo yoo xamante ne ay moomeel lañu la ñu jël ko te teguñu ko ci yoon bàyyi nañ leen ñu dem bon te toppeetuñu leen dara waaye nag PDG bu Isaac Mamadou Diop moom euh, ñu ngi ko nar a yóbbu ci kanamu procureur bu ñu sukkandikoo ci libération online ba léegi ñu koy toppee euh, kon détournement de mineur te ab ëmb topp ak it euh, di jéem a bàyyi kon ci xale wala bokk di jéem a jël xale yooyu lee di leen dugal ci wàllum def ñaawteef muy incitation à la débauche kon ñu ne moom defeere nañ ko ba noppi moom mi Mamadou Diop ci wàllum yoon ba léegi am na ñaari nit ñu teg loxo fële ca Kafountine ngir trafic faux faux billet de banque gendarmerie bu lu moom moo leen teg loxo leneen lu mu jël muy matériel bi ñu doon defee billet yu bon yooyu lee ak ay produits chimiques ak ay euh, coupure mille 1000 francs maanaam ay billet yu 1000 francs yu bëri sax nag ñoom euh, biti réew la ñu bàyyee ko maanaam duñu ay euh, sénégalais te nee nañu fii la ñu nekkoon Dakar rawatina quartier Sacré Cœur ak Ngor laata ñuy dem foofu ca Kafountine ba ca Ziguinchor ñu ngi leen yóbbu ñoom it ci kanamu procureur dañuy ñëw euh, fii ci Ndakaaru ci ancienne piste bi am na ay mécaniciens yu fa nekkoon ñu teggi leen ñu ñëwaat fa ñoom nag euh, gendarmerie teg na leen loxo téeméer ak euh, ñett ci ñoom ànd ci ak direction bi xeex encombrement ci ministère de l'urbanisme kii jiite direction boobule sax nag di kolonel Maguette mbay nee na képp ku defati lu ni mel jamono ji yoon ci boppam moom moo nara lijjanti mbir moomu lee Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba ñu nga fa woon depuis weeru juin ba léegi nguur gi ma ngay amel opération déguerpissement ci dëkk bi de ci gox yu bari wante bés bu ñu leen dellu si rek bés bu ca dellu si waat ñu ñëwaat ci boobee bërëb. ah biñ ko commencé ba léegi vraiment gis nañ ci ay résultats yu baax a baax parce que am na euh, ay sites yoo xam ne nañ ko comme euh, stade euh, Léopold Sédar Senghor mais également fii ñu taxaw nii mooy ancienne piste gis nga booy xool am dafañ aménagement yu yu mucc ayib ñu ngi continuer ci loolu mais dafa am si ñoo xam ne nag dañoo dëgër bopp lool lool lool lool chaque fois bu ñu leen dindee fi ñu def aménagement sax ñu am na ñoo xam ne démb fekk naa leen fi ñuy def ñuy def ay préparation de véhicule def ko ay garage mécanicien ba tax ni démb nag gendarmerie nationale interpellé ci lu toll ci mi rek ñetti mécanicien fee nga xam ne moom mooy ancienne piste. looloo tax démb ñu ñëw def benn opération ak commandant légion ouest ak euh, gendarmerie bu bu Wakam ñu ñëw fekk leen fii a ah, def opération bu mag jàpp ci 103 ah 103. Euh, jël leen jëbal leen au niveau de la justice. ay daan yu diis nag fas yéene tegu ci seen i ndodd. en ñuy risqué daal xam naa ni am ay daan yu daan yu diis a diis parce que vraiment parquet bi ñu ngi liggéey ñun ci en parfaite coordination et ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay ci loolu. moom mi nga xam ne moom mooy directeur de lutte contre nga xam ne dañ koo fas yéene def dellu si waat ci bërëb yi nga xam ne dañ leen faa jëli. ñoom ñëpp la waxal. ñi nekk fii ñi nekk feneen ñi nekk Liberté sax yëpp que ñun dañu def ay opération léegi yoo xam ne dinañ ñëw dal seen kaw jàpp leen yóbbu leen jox leen justice justice def ci li ci war a yam ma wax leen ni rek ah ñoom ñu jël seen matukaay parce que ñun jël nañ suñu matukaay parce que fu ñu leen fekkati dinañ dal seen kaw jàpp leen yóbbu leen ci yoon parce que li ñuy def du yoon euh, euh, euh, dañ ko tere taxaw ci kaw tali bi def lu la neex lool moom loolu moom jeex na fi léegi jërëjëf Fat Bintou Konté opération désencombrement yooyu lee du Dakar kese fële ca Ziguinchor tamit door nañu ko rawatina ca gare routière ba lépp lu fay gàllankoor ñu teggi ko fa ab euh, dogal bu tukkee euh, ci réunion conseil municipal ba ñu jëmmal ko ci teewaayu polis ak euh, préfet bi nekk foofule waaye jaaykat yi nekkoon ci boor bale li ñuy laaj mooy ñu wutal leen feneen fu ñu nekk Boubacar Diassi Lamine Mandiang ca Ziguinchor yëkkati fii yi commerçant ngir gën a yaatal gare routière bi Ziguinchor li ni mel la mairie bi dogal di taxaw ci tem waaye nag mu fexe bi policier yi teew ci am na ñu ñu ne sax yeex nañ koo def mais comme ni ñu ko waxee ci nasaraan mieux vaut tard que jamais loolu yëpp boo gisee mu yeex dañ doon waxtaan ak euh, commerçant yi ak restaurateurs yi ak euh, mécanicien yi nekk ci biir garage ñu wax leen pour ñu ku nekk comprendre ñu wax leen ni li ñuy def ni yëpp pour seen sécurité la mais pour seen hygiène préfet bu nekkoon it ci bërëb ba certes initiative yi affaire boobu initiative bu ñu bu ñu nasoon la mairie aussi également ñoom it également gën ñu ci jàppale ndax ñoom ah, seen lëkkaloo ak gare routière jàpp nañ ne fii dafa baax wala mu jaadu woon ku ñu defaraat toogaay bi ah, parce que gisu ne fii oto sax pour mu daw fi dafay jafe ndax amul benn plan de circulation. comme instant yi di ci wax li ni mel. nit ki soo ko yëkkatee kooku ñun ñëpp ay citoyen la soo ko yëkkatee nga ko jox na ko jàppal ci lii mais ni mënoo ko yëkkati taxaw nga ñëw déggee si ko nu xam la neexee te néew ko fii jox néew ko fii jox. waaye préfet bu Ziguinchor di dalal seen xel. donc ko defaraatee nga xam ne aussi ñoom ñoo ngànk gare routière bi mooy le président daal moo doon sabab bi di dalal xel yi ñëpp wax ne dara loo xam dañ ko def te diisawuñ ci ak ñëpp. jàpp ni conseil municipal bu Ziguinchor dafa daal di jël ndogal ngir fexe ba capitale Bët Saalum réew mi nekk dëkk taax bu gën a set ci suñu réew. anam yu jaarul yoon nekk na lu la jël huit ndaw ñi file ba tax na Union européenne am na beneen euh, partenariat bu mu taxawul diggam ak Sénégal ñu fas yéene koo jëmmal xaalis bi nag biñ ci dugal 9 millions la boo koy xayma juróom-benn ci sunuy koppar ñu gën a dooleel ñi nga xam ne ñoo di takk der yi waaye tamit jox ay jumtukaay euh, police ak gendarmerie ñuy lëkkaloo ak yeneen service yi fexe ba xeex loolu lee daj bi tey jile ci suba la woon ci teewaayu Ibou Diouf ak Mohamed Dieng. ci biir Afrique ci biir àdduna bi wala sax fii ci Sénégal bëri na ay réew yoo xam ne rek tukki bu lewul bi def leen sonal fii ci réew mi nag ngir xeex lu ni mel waa Union européenne lëkkaloog waa Sénégal ñu xaatim benn partenariat ngir dooleel ñi nga xam ne ñoo dugal seen loxo ci boobu la xeex. Ce projet spécifique euh, qui est un projet de 9 millions d'euros donc tout à fait. Euh, projet bi nag mi ngi toll ci juróom-ñeenti millions d'euros bu ko xaymaa suñu xaalis mi ngi toll ci juróom benn milliard de francs fa la ko tax a jug nag moom moo di renforcer lii nga xam ne moom mooy capacité ñi nekk fii ci dëkk bi de te jàpp nañu nii ak jumtuwaay yi ñu tekk dinañ am benn centre de référence boo xam ne dina permettre ñii bëgg tukki ñu am wéeruwaay ba tax ni lii ñu wax immigration clandestine ñu mun koo xeex ci mim réew. mais. Euh, pour euh, lutter contre euh, les trafiquants. ci biir programme bi nag ñu ngi xool ni ñu mën a def rek ngir li nga xam ne tukki bu jaarul yoon fii ci réew mi moom ñu mën ci teg loxo. ci loolu nag takk der yi ñoom dañu bëgg rek àndandoo. ak itam ay jumtuwaay yu mu caay. formation bi nag lu am solo la donc da ma taxaw foofu parce que dafa am ay outils technologiques yoo xam ne ñoom ci kaw projet boobu parce que projet bi du dul ndaw 9 millions d'euros la donc presque yegg juróom benn milliard donc loo xam ne la. bëgg nañ ci jënd ay matériels yoo xam ne dinañu permettre ñuy xool di saytu di def enquête di mën a surveiller di mën a def lu bëri. na loo xam ne peut-être am na ci solo mooy tabax yi nga xamante ne dinañ ko ci def. dinañ ci tabax ay structure réhabilité leen ñi nga xamante ne dañ yàqu ñu réhabilité leen. Union européenne jaarale ko ci programme am bi nag nee na fa bëgg gunge Sénégal ci li nga xam ne mooy wàllu xarala yi jaarale ko tamit ci fexe bi ñi nga xam ne rek mooy service yi ci liggéey ñu bokk benn xeex. maanaam wéccee euh, information yi nga xamante ne dañ ko am déjà ci suñu biir ñun ak euh, yeneen force yi maanaam ay euh, diggante police gendarmerie douane ak justice waaye également ñun ak suñu naataandoo yi nga xamante ne tubaab yi lañ commencé nañ ko sax déjà plateforme bi donc ñu ngi ci di ci liggéey su génnee daal dina tax ñu mun weccee yu bëri yu weccee xam-xam di weccee ay information du toll ci juróom benn milliard ci suñu xaalis lañ dugal ci bile partenariat ñu ne nag programme bi dafa rekk jóg ngir xeex lii di tukki bu jaarul yoon ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu di jël xale yi di leen yóbbu bitim réew ñooñu dinañ def kem kàttan ngir seen xeetu jëfin yooyee ñu mën ko fi jëlee ba faw jërëjëf Ibou Diouf njiitu réew bu Gambie di Adama Barrow moom ñu ngi koy xaar ndakaaru tey jile mu war a bokk ci conseil présidentiel moom ak nataangoom di président Macky Sall bi ñu nar a amal suba jagleel ko dem beeg dikk beeg lëkkaloo bi ci diggante ñaari réew yooyu le muy egsi ci jamono ji nataangoom bu Guinée Bissau di Umaro Sissoco Embaló bàyyeekoo Sénégal ginnaaw ab ganu ñaari fan bu mu amaloon file ñu wéy ci uh, tàggat yaram wax ci uh, match Manchester City Arsenal euh, bu tey ci ngoon dàq nañ ko nag ba jëmmi jamono mu ñeel championnat Angleterre li ko waral mooy ay joueur Arsenal yu bëree bëri dañoo jege woon alxames geeweesu président club grec boobule di Olympiakos te moom président club bi sax dafa am jàngoro jàngoroy coronavirus Olympiakos am Sénégal yu fay euh, joué kon joueur yeeg staff yu Arsenal dañoo war a toog lu toll ci ñaari semaine maanaam ñu ber leen xool ndax jàngoro bi mu ngi seen yaram am déet ci wàllum Ligue Lyon jàppale nit euh, match retour euh, Paris Saint-Germain Dortmund tey jële lay doon euh, waaye huis clos maanaam dañ koy tëj te kenn du ko fekkee ndax jàngoroy coronavirus bi moo waral lu ni mel préfecture bu police bu Paris moo jël dogal bu ni mel match retour la ci aller bi doxtu Dortmund moom moo dooroon euh, PSG ñaari bal ci dara ba léegi rek ci wàllu Ligue des Champions match retour euh, Liverpool ak Atlético Madrid tey jii lay doon waaye du nekk kon euh, match huis clos Liverpool mooy dalal ci match aller bi Atlético moom moo dooroon benn bal Liverpool dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey jile jërë ngeen jëf tong tong naat bu waree am réew dunq yaa tax vox populi nee nañu coronavirus bi jur na démb ak tiitaange ku jaaxle ku njàqare ca Kolda ak ca Tambacounda ubbil yéenekaay bi benn doomu France dañu fa quarantaine ci ab néegam feebaru coronavirus bi la ñuy xool ndax da koo am am déet jël nañu ci moom ay prélèvement ba yónnee ko Ndakaaru Institut Pasteur ngir ñu war a def ay test moom tubaab bi journal bi nañu ñetti fan ci weeru mars ci la duggoon ca Kolda la muy jàmbat ci yaramam moo waral kilifa yi gàllo wàllu wiir gëram ca Kolda ragal ne dafa coronavirus ca Tambacounda it Vox Populi xamal nañu ne am na beneen tubaab bu fa faatu mu jurug tiitaange gurée ci askan wa gouverneur dëkk ba jël dogalub campement bi tubaab bi daloon mu quarantaine ko fukki touriste ya nekk ca dëkk ba mu quarantaine leen teg ci ber fanweeri doomi aadama ya doon fréquenté campement ba ñoom ñëpp yéene kaay bi nañu ñoo ngi xaar li war a tukkee ci test yi ñuy def ca ñoom ci institut Pasteur résultat test yi tey jii ca la war a génn ñu génn ci journal boobee dugg ci beneen journal mu di journal Source A xëy moom dugg ci coow li ba xamal ñu ne askanu Tambacounda yi ba ñu déggee ne CRG di touriste français bi dafa faatu dañoo jaxasoo ñoo gënoon a gaawi lëkk li ñu naan daw ca ba nga ami tànk yéenekaay bi nañu loolee la ñu def l'observateur xëye alerte di yëglu gu bees ci coronavirus bi boole ko kit kàdduy leeral yu mu nangoo ci cancérologue bii di docteur Abdoul Aziz Kassé muy wax naan tuxkat yekk ñiy faral di toog fu ñuy tuxe ñoo gën a néew ay sens ci wér ci coronavirus bi pneumologue bii di docteur Oumar Ba di ko dëggal ci l'observateur di ñu wax ne ñi nga xam ne ay tuxkat lañu bu ñu coronawee faj leen a miti faj ku musuta tux bu dee ci wàllu kam di économie docteur Abdourahmane Diouf mi ngi ne feebaru coronavirus bi dina indi ak cooxe ci économie nationale bi soleil national nañu Sénégal soxla na yeneen i koppar ngir wéyal xeex bi muy xeex ak coronavirus bi les économies ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax nee na na partenaires yëngu gën dugal seen loxo génnépp xaalis teg ci taabal ji ngir jàppe ko ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi enquête dina kay nañu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr 1 milliard 440 millions lay wër suur soit nañu suñum réew tax na réewum Chine ak yeneen i réew jébbalu nañu ci Abdoulaye Diouf Sarr ak compagnie état bu Sénégal ak compagnie ñàkkati nañu ca kanamu Karim Wade le témoigné nañu noonee la demee bii mooy fukkeelu yoon état bu Sénégal di songu Karim Wade ci mbirum traque des biens mal acquis mu di alal ju ju ñu koy toppee waaye waxtu wu ñu roofoo rekk ci procès international état bu Sénégal mooy féete suuf Karim Wade mooy gañe procès ba bit ci mujj journal bi nañu mooy cong gi fi état bu Sénégal songoon Karim Wade bu yàggul Karim moo am ndam ci seen kaw La Tribune bind ci xëtamu njëkk Karim puissance 10 diggam ak état bu Sénégal mu mujjee am ci seen kaw La Tribune nañu keroog la woon ca Monaco ca Thiès it la tribune xëy na di ñu xamal ne xale bu jigéen ba ñu fa rayoon ci anam wu ñaaw di Mariam Diagne ay mbokkam jébbal nañu ko boromam démb ca rob ñaar ñoo ca gënoon a fës mu di aw tiis ak naqaru xol ki xolam jeex tàkk ci mbir mi di jëkkëri ndaw si l'observateur xamal nañu ne Cheikh Faye la tudd juróom-benn fukket ak juróom-benn la am doom la ci général Wali Faye moom it porté na plainte Assane Gueye mi ñu ne moo rey jabaram Mariam Diagne Cheikh Faye nañu ci journal bi Assane genn wàllam la ko jëlal l'observateur jëlaat ñu ne Assane Gueye mii yoon di topp ci faatu Mariam Diagne mas naa dugg tëjuñu ko kaso ndax ordinateur bu mu sàccoon. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñi àndoon nag télévision Futurs Médias ñëpp ñi jàpp ci xibaar yi 19h30 incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatal leen yeneen xibaar fileeg boobu ñu yendu ak jàmm.